nuyu askan wi nuyu aussi sama sama sama sama njaboot bi ma fekk fii muy fii di famille nga xam ne jóge nañ fépp moom ñëpp daje di def yi nga xam ne tiyaaba bi ci nekk yool bi ci nekk kenn xamul kenn xamulum lu toll donc ne ma nag dañoo bëgg ñëw nga nga ñëw gunge mi ci ci ñoom laa njëkk kontaan ñëw tamit fii xam nga Grand Dakar distribué ndox yi kontaan gis xam ñoom ñëpp ni ñu ma accueillir ak ni mu demee ma leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen di leen di leen wax kooru jàmm di leen déwénit di leen baalu àq te di leen ko baal. vraiment Sidi ñu gis tamit nga ciblé fi nga xamante ne tey mooy euh, mm. waaw euh, parce du cible parce que yi maa ko def mais bu ma demee ba sama sama Sidi famille dajaloo di ko def du ñaari tali rek war bu ñu fi jógee war nañ dem Pikine war nañ dem Guédiawaye war nañ dem fépp incha allah. tey ñu gis ne bi nga seedalee non amuñu ci benn jafe-jafe amuñu ci benn jafe-jafe liñ ci jàng rek mooy nit ñi dañu laa bëgg parce que nit ñi kenn moomu leen boo génnee ñëpp génn ñëw di la jàppale sax nga gis nit ñiy jàppale di di la joxeel ñii ñëw xama ñëpp ñëpp ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi aw ma ci benn jafe-jafe parce que ñoom lii la am ci suñ jëmm yi mooy ñu génn ñu gis ñu nuyu ñu bëggee ñu kaf ak ñun réew ñun après benn 30 minutes la ku nekk ñibbi waaw mu ma ci benn jafe-jafe au contraire dama ci kontaan waaw waaw nga xam ne rek mooy fan sam laa waaw xam nga Fallou man fan sam laa mhm. Fallou moom Fallou Sénégal la comme turandoom rek sëñ Fallou Sénégal moom suñu raq la suñu jarbaat la suñu lépp la mhm. muy mu mu baax loolu ah di dégloo nag ñëpp ñëpp bëgg ko Fallou ñëpp ko bëgg dañ koy ñaanal yàlla rek jàmm cat seexlu ko ah bàyyi ko fi mu gudd fan wér yàgg duñu bëggal waaw man moom man fan sam laa waaw doomu nday Nguuna Njaay <laughs> kontaan ah. nag Sidi bi ñoo def lépp waaw man awma ñoom seen fay ñoom ñoom li ñuy def ci man man mënu leen ko delloo xaaruñu ma ci dara lépp lu ñuy def ñoom dañu ma bëgg te yàlla tax dañuy yëkkati seen lépp di ci def barki Serigne Saliou Mbacke man bala maa ñëw bay def ñoom fekk naa ñu defar lépp kon loolu mooy wane ne ñoom jàppeetuñ ma sax kat frère lañ ma jàppee ñi ñi ñi ñi ñi seen grand frère ñii ñi ñi ñi ñi comme ku ñu bokkal ndey ak baay donc maa ngi maa ngi profité tamit ci occasion bi di leen nuyu góor yàlla yi di nuyu sama doomi jigéen yi maa ngi leen di nuyu bu baax am na ñu jugee ba Tivaouane am ñoo xam dañoo jugee ba Kaolack ñiy jugee ba Guédiawaye ñiy jugee Louga Parcelles fu nekk xama gaa yi jóge fa Tivaouane donc maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di remercier di ko teg ci loxo nag maam fàll mi nga xam ne mooy président bi aw ma fayam yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla bàyyi ak ñun yàlla yàlla yàlla yàlla def suñu diggante ak moom gën a ratax gën a neex ba liggéey bii ma ko dénk mi ngi koy wéyal te kontaan naa ci mais yàlla may ko kàttan ak doole ak xam-xam bu mu ko gën a mën a wéyalee ci barke Sëñ Fallou Turandoom